internet salaamaaleykum yi nga xam te ne nii yéen ñuy bàyyi xel ci Leral TV tey nag ñu nar a am entretien ak ki nga xam te mooy Fatou Kiné Sène nekk ci APS nekk journaliste culturel ñu fas yéene waxtaanee ci ay ponk yu bëree bëri xanaa rek dañ koy jox mu nuyu laata rek ñuy tàmbale ki nga xam te ne nii tàmbale waxtaan bi Fatou wàcc na nuyu téléspectateur yu ñuy seetaan. Euh, man Fatou Kiné Sène euh, journaliste à l'agence de presse sénégalaise chef du service culture et société euh, à la l'APS et membre de la fédération africaine des critiques de cinéma ex-présidente parce que nekkoon naa ko de 2019 à 2023 daaw laa joxe lenge bi sama beneen naataango bu nekk Guinée. Fatou nga defoon ñu un peu sa parcours fan nga juddoo fan nga jànge Euh, man nag maa ngi juddoo fu sorwul fii rek ñu koy wax Diouroup si région de Fatick la bokk bi ñuy dem euh, fim la démb romb nañ ko fi marché mercredi bi amoon foofu laa juddoo foofu laa dëkk fii nii Fatick ñu nekk tey foofu laa juddoo y a plusieurs décennies <laughs> maintenant euh, ma ñëw fii avec fierté parce que dafa nekk ville boo xam ne du ma fi ñëw lu bëri dama yem suñu dëkk rek euh, muy Diouroup foofu laa yem en général mais c'est avec beaucoup de fierté laa ñëwee fii si si fekk nag bi fes nag bi ñuy jagleel euh, ville bi ma juddoo nga xam ne lu rëy la si man. Mhm. un peu ak parcours académique bi. Euh, juddoo Fatick yaroo Dakar. parce que samay parents foofu lañ doon liggéeyee sama yenn raq yëpp sax foofu lañ juddoo euh, jàngee Immaculée Conception bi nekk port euh, ñëpp ràññeet ko muy sœur yi ñoo ma yar Euh, ma yoroo si si biir sër yi sama pap doon liggéeyee foofu suñu waa kër ñëpp jàngee foofu ma def foofu sama cursus du jardin d'enfants ba terminal bi ma amee bac après dem université de Dakar euh, faculté des sciences juridiques et économiques foofu laa defee deux ans avant may virusu journalisme bi di ma piqué ma dem defi ISEC euh, sama BTS defi ISIC e sama master 1 ak master 2 à l'ISIC si la liggéey pendant plus de dix ans à à Walfadjri parce que Walfadjri euh, dafa nekk euh, lu central si sama parcours parce que euh, dama nekk di jàng première année rek laa def deuxième année bi ku ñuy wax Tidiane Kassé repéré ma foofu parce que sama prof la woon mu ne ma yow je te vois bien en presse écrite si noonu laa dooree mu or oh, fekk instant boobu moom moo nekkoon euh, def naa bu ma mu directeur de publication de Walfadjri ma mu copte ma foofu en tant que stagiaire ma commencé noonu laa commencé sama deuxième année yëpp dama doon baagante Walf Sacré-Cœur la nekkoon ISEC soriwul woon dama doon def su ma wàccee rek dem defi stage foofu ma pare rek continuer si Walfadjri dafa nekk fa pigiste contractuel ba 2016 euh, nag malheureusement laa fa jóge woon euh, dem pa joge euh, mm-hmm. peut-être parce que dañoo arrêté woon les contractuels mm-hmm. ñu ne y a eu quelques soucis pour ñu recommencer à nekk pigiste man dama am benn philosophie boo xam ne je je marche pas jamais en arrière je mm-hmm. marche toujours en avant Euh, loolu gënal ma ma ne damay arrêté gisuma woon dara sama kanam aw ma woon liggéey aw ma dara sama famille comprendre ñu woon décision boobu ma man j'étais déterminée à ne pas euh, aller en arrière mais à avancer dans ma carrière si laa toog pendant ay mois yeggu sax ay deux mois trois mois si laa dugg APS ñu ñu euh, ku ñuy wax Aline Diop ñëpp xam ko euh, mu nekk RSI di journaliste bu mag bu ma naw sama aîné may jàng lu bëri si moom moo ma moo ma présenté directeur ba fa nekkoon Thierno Birahim Fall euh, fekk instant yooyu ñu soxla woon kuy gérer euh, service culture bi ma ñëw introduire à l'agence de presse sénégalaise nekk fa ba tey ma nekk chef du service culture et société daaw pendant toute l'année j'ai été service chef du service culture ren ñu yokkal ma beneen département si sama si sama service bi mu nekk euh, société en même temps moo koy gérer en même temps loolu mooy parcours bi euh, Walf yàgg naa foofu mooy famille bi foofu la <laughs> lépp soqee ko euh, ma amoon fa nag ñu nga xam ne dama leen naw naw naw ñoo xam ne ay maître lañ ci man muy Jean Maïssa Diop Jean Meissa Diop yàlla na ko yàlla yërëm fi mu jëm yàlla na ko gën a fii mu jógee ku ku ku sori woon la si man parce que daf ñoo jàngal lu bëri nu ñuy bindee nu ñuy Euh, déontologie journalisme lu bëri règle yu nga xam ne moom ngay respecté journalisme daf ñu jàngal lu bëri si ay comportement si ay bindam parce que dañu doon bëri si bind muy Tidiane Kassé Tidiane Kassé bi ma wax si njëlbeen mu nekk fii yàlla na ko yàlla yàggal fii euh, kooku dafa ma jàngal lu bëri tamit si journalisme nu ñuy bindee euh, surtout bind parce que ñooñu ay maître lañ si bind bi ñu nee presse écrite rek nga wax seen tour rek si Sénégal ak si àddina bi yëpp ay ay kàngam lañu comme on dit en général. Mm-hmm. ak ñeneen muy biyaay biyaay moom ma introduire si culture parce que première fois bu ma ñëwee wal dama yeew benn jour y avait les mercredis du cinéma. Mm-hmm. Ah, le Paris et dans les salles de cinéma ci lañ doon def sorti cinéma yi. après sorti cinéma yi euh, journal yi dañu doon dem couvrir mercredi bi comme ça ñu bind si après samedi bi le film di benn jour rek mu yeew mu ne ma tey yow yaay dem sorti cinéma le Paris ma ne ko lan laay bind mu ne ma boo demee boo seetaanee ba ñëw après nga xool li ñuy bind. Ah. c'est comme ça que je entrée dans la culture mais culture dafa nekkoon si man avant parce que depuis Immaculée dañu doon def. tous les mercredis dafa doon am euh, séance cinéma wala séance de lecture de livre da ngay lire benn livre ñëw ngeen discuter euh, ci livre bi ku nekk def contrant rendu cinéma dañuy teg foofu laa njëkk a gisee le film Rue Casse-Nègre de Ezen Palsy foofu lañ ko njëkk teg ma gis Douta Seck di jouer ci film bi mu nekk film bu ma marqué woon la immaculé laa ko seetaane ñu discuter say yooyu moo tax tey bu ma retrouver au cœur du cinéma pour man du ma lu ma bett lu ma bett parce que euh, euh, commencement bi immaculé la woon mhm. bon ma xam ne ah, virus bi moo woon si man bu yàgg peut-être day soog di feeñ ne si yeneen ma <laughs> euh, manière mhm. Mhm. Euh, tey yaa ko wax tey di journaliste culturel que euh, te la plupart dañuy fi journaliste culturel yi dafay xaw a métti un en tant que femme yow nan nga koy dundee comment tu mhm. à gérer la maison ak génn terrain bi man damay wax toujours organisation la am na ñoo xam ne nekkuñu si duñ la mun comprendre mais lu métti la mais yow yaay organiser wu rek xam nooy gérer euh, kër ga di gérer si liggéey man nag dama am xadar trop si liggéey su ma commencé liggéey dama koy liggéey bu mu jeex balaa may def leneen si le faut ma délégué délégué le plus souvent euh, lu jëm si famille bi yooyu délégué le plus souvent pour mën a euh, def sama liggéey euh, voyage yeeg yooyu yëpp da ngay xamante ne euh, da ngay sa famille daf lay manqué mais liggéey bi moo ko laaj parce que boo nekkee journaliste culturel da ngay couvrir da ngay dem couvrir ji ay manifestation fu ne dem Afrique bi lu bëri surtout des pays francophones yëpp couvrir naa ko en Europe euh, dem naa fa festival de Cannes deux fois euh, festival euh, de Belgique deux fois yooyu yëpp da nga koy da nga koy couvrir mais organisation en amont la laaj. Hmm. pour mën a consacrer wu à ta de journaliste. Hmm. tey gis nañ ni peut-être li nga mooy journaliste culturel yi affaire yi mi ngi commencé di xaw a yaatu am na xale yu commencé aussi di ci bëgg a wu hmm. tey. yan conseil ngay def yooyu jeunes yi nga xam te ni peut-être la plupart commencé nañ dugg yow mi am nga ci expérience xëy les conseils lan lay war a nekk. waaw conseil yi mooy euh, que ñu ànd ak passion ak intelligence bu ñuy liggéey surtout nga bañ ñëw rek euh, dans une rencontre euh, nga dispersé wu da ngay am un peu avant ngay ñëw. nga def documentation surtout si événement bi ngay dem parce que am na ñu bëri ñoo xam ne dañuy ñëw rek sur le champ ñëw rek si événement bi sans pour ñu xam événement bi lan lay lan lay wax peut-être dañ leen def conférence de presse diw rek ñu dem foofu sans pourtant xam diw lu mu liggéey avant pour mën a am des questions pertinentes yoo koy poser pour mu bañ a nekk monologue parce que en général nit ñi dañuy dem di interviewer nit mu nekk monologue nit ki rek ay wax yow amoo benn question contradictoire wala amoo benn question boo xam ne musoon na ko def nga fàttali ko ko wala nga def comparaison parce que il faut toujours mu am documentation en amont avant ngay def ci événement quel que soit l'événement bi ngay couvrir en culture en politique ak yooyu yëpp il faut chaque fois que journaliste bi armé wu avant muy dem te am boobu mooy documenté wu ci sujet bi ngay dem defi nga documenté wu avant avant nga fay yegg. Mhm. tey aussi ci li nga xam xamante ne ni mooy Fesnac nen ci waxtaan un peu 12 euh, ans deuxième édition la ñu nekk. Mhm. ñaata man nag trois fees naa rek laa bu Louga bu Kaffrine daaw ak bu euh, Fatick parce que fees naa ko Louga après Louga Kolda moo amoon malheureusement aw ma woon euh, j'avais pas de temps pour dem foofu moo tax mais j'aurais bien aimé dem parce que côté boobu endroit yi bu ma neex la mais malheureusement j'ai pas pu y aller à part Kolda boobu nag après fees naa amatul woon fees naa dafa meloon lu dee. ba Alioune Sow bi mu ñëwee le ministre Alioune Sow bi mu ñëwee daaw la ko xaw a dekkil yóbbu ko Kaffrine yóbbu ko tey jii mu nekk Sine fii si Fatick mais euh, j'avoue que c'est depuis l'année dernière en tout cas par rapport ak euh, innovation yu mu jël par rapport fes Fesnac parce que nag man bi ma fekkee Louga Louga rek lañ ko doon organiser les problèmes logistiques c'était la même chose il y avait beaucoup de problèmes logistiques temps boobu c'était du temps de Abdoulatif Coulibaly moo nekkoon ministre de la culture c'est que amoon na ay prestations yu de haute facture par rapport aux artistes mais euh, logistique bi comme dans toutes les euh, organisations culturelles dans les régions day xaw a des je crois que dans ce cadre là bu fekkee am na lu ñuy rectifier mooy infrastructures yi les régions ont beaucoup besoin d' infrastructures culturelles d' infrastructures d' accueil surtout parce que gis nañ li ñu li am fii Fatick premier jour bi peut-être affluence bi dafa bëri woon ba Euh, kii nu mutu otel yeeg yooyu matu woon nit ñi fi nekk waaw waaw dafa amoon problème réceptif mais bi nit ñi wàññeekoo premier jour bi affaire bi xaw na xaw na tane et c'est c'est heureux de voir que Fatick léegi am na parce que man ñëwoon naa Fatick avant ay année avant am woon sax ay hôtel ay yooyu Fatick dafa xawoon dee mais léegi li ma gis Fatick dafa euh, changé y a nouveau visage de Fatick qui est là, que l'on voit, qui est très ah, joli, beau, activité. Oui, oui. C'est ça la mission du FESNAC. ñu mhm. def ko ci région yi pour permettre les régions yi ñu am ay infrastructures ñu am ay euh, euh, réceptifs hôteliers ak yooyu pour les permettre d'avoir les mêmes standing de vie que Dakar loolu moo nekkoon objectif initial u FESNAC bi li tax ñu defee ko ci région yi malheureusement comme disait euh, le professeur Ibrahima Wane coordonnateur du colloque lors de l'interview nee na euh, loolu mission boobu suivul daal par rapport FESNAC yu ñu def yëpp mais man li ma gën a saluer euh, peut-être dafa tomber <laughs> ci ministre Aline Sow c'est son idée c'est génial le fait que mu décentraliser ko dans les départements ça c'est une innovation de taille pour le FESNAC et man dafa permettre ñu gis li nga xam ne ñoo ngi koy def dans les terroirs surtout Kaffrine gisoon nañ liñ defoon Malem Odar Sibi bi ñu demee Wanaar yooyu c'était des c'est des choses extraordinaires que les Sénégalais doivent savoir et ñun comme on est des relais bu ñu fa demee dañuy euh, rendre compte Sénégalais yi nii ak lii et sa peut leur permettre d'aller là et de voir ce qui se passe c'est pas normal que ñeneen di ñëw di euh, mieux connaître euh, suñu dëkk que ñun ñu fi dëkk il faut que ñu génn Dakar génn capitale régionale yi dem ci département yi pour mieux connaître lii ñu def fii dem Fimela dem Diofior dem dem Diakhao euh, man mi dëkk Sine c'est la première fois may dem Diakhao c'était heureux pour man en tant que séeréer ma dem au cœur de du Sine lu ma neex la woon mm-hmm. bon pour te dire que décentralisation bi le fait ñu boole ci département bi c'est important et c'est à quelque quelque à perpétuer je crois. Euh, tey euh, xam naa li mhm. mooy par rapport ak euh, sa domination bu bi. Mhm. <laughs> waaw waaw j'ai été récemment man maa nekkoon comme nu ma la ko wax bi ex de la Fédération africaine des critiques de cinéma bu regroupé plus de 350 journalistes Afrique à diaspora mm. mooy africains yi nekk ci diaspora dans tous les pays euh, Europe ak euh, États-Unis euh, depuis 2023 laa joxe lengue bi sama beneen naataango bu nekk Guinée mais dafa am benn structure ba nga xamante ne moom UNESCO moo ko mettre en place ak gouvernement burkinabé ñoo ko mettre en place mu tudd Serave Afrique moom li muy toppatoo mooy promouvoir les arts de la scène les arts du spectacle l'audiovisuel et le cinéma depuis 2000 euh, je crois 2014 lañ ko mettre en place moom lool mooy liggéeyam ren lañ ci dugal cinéma ak audiovisuel mais avant art du spectacle rek la doon toppatoo c'est dans toute l'Afrique nag lay toppatoo yooyu naka lañ koy promouvoir et promouvoir aussi la convention de l'UNESCO sur la diversité culturelle loolu mooy mission am léegi nag si euh, structure boobu dafa am conseil d'administration conseil dafa am conseil d'administration am délégué général délégué général bi dafa am ay membres am conseil d'administration ak conseil scientifique man nag dañ ma copte ci conseil d'administration bi pour ma nekk comme administrateur de Serav Afrique euh, dafa am euh, ivoirien moo ngi ci ghanéen gabonais ak euh, burkinabé ay muy ay pays Afrique yu bari yu ci nekk ci conseil d'administration bi benn burkinabé jiite ko Euh, si foofu lañ ma coopté pour ma euh, participer à cette promotion des arts euh, du spectacle du cinéma et de l'audiovisuel mais ñoo ngi ma coopté en tant que au titre de la FAC c'est-à-dire de la Fédération africaine des critiques de cinéma pour ma bokk aussi c'est un mandat bu de trois ans boo nga xamante ne dañuy am ay sessions di xool di nemmeeku liggéeyu délégation général bi ak euh, programme bu muy mettre en place pour mën a euh, saytu mission boobu ñu ko dénk. mën kon ëllëg nga jógee la paix sénégalaise de wala. <laughs> non non non c'est c'est c'est par session rek non yàqul dara dama nekk euh, lii sama liggéey la mais lii sama contribution la pour le développement de l'Afrique. Mhm. je suis engagée en tout cas je crois à ce développement de l'Afrique. par la culture te culture rek moo mën a développer Afrique boo gisee lii nit ñi dañuy xepp trop culture te culture boo firnde man bi may joxe rek chaque fois mooy film boo ko seetaanee générique bi buy buy wàcc boo compter ñi si liggéey ñëpp dina mat cent personnes wala mille personnes loolu rek c'est un creuset d'emploi def naa gouvernement bu ko comprendre culture Sénégal commencé na ko comprendre mm-hmm. avec tous les financements yi Macky Sall def ci culture bi mm-hmm. defe naa commencé nañ ko comprendre mm-hmm. depuis euh, Senghor tamit Senghor avec sa politique culturelle très claire comprendre na ko peut-être Abdou Diouf avec les ajustements structurels ak tous les problèmes chaque président dafa am contexte mais loolu la ñu war a comprendre culture lu mu mën a defal Afrique te ñun li ñu am ci culture defe naa bi ñu ko soqalee Afrique bi yëpp ay soqalee ko lan moo la gën a marqué si sa carrière. Euh, li ma gën a marqué posé nga ma nag <laughs> question piège <laughs> li ma gën a marqué ci sama carrière mooy c'est euh, ah, pas ah je je retrouve maintenant mooy surprise nomination bi ñu ma nommé euh, avec la direction du livre. choisir ma pour sargal ma lu ma bettoon la mais lu ma bégloo woon la tamit euh, le fait que direction du livre euh, benn jour rek ñu woo ma ne ma yow la ñu choisir pour sargal la pour sa contribution dans la culture pour le développement de la culture au Sénégal xam nga ñun bu ñuy liggéey dañuy liggéey rek liggéey ñu pour xaar nit décorer ñu wala pour xaar nit sargal ñu mais bu ko nit ki ñëwee def si coobare mu xool ne yow li nga liggéey euh, amal na njëriñ sa dëkk amal na njëriñ Afrique mu ñëw sargal la si loolu lu luy kii sa tooyal sa xol la boobu moom lu ma lu woon la marqué bu baax a baax. si si c'était nekkaat journaliste. ba baña <laughs> dinaa nekkaat journaliste kay parce que journaliste man su may fàttaliku peut-être fan laa ko jëlee. Euh, sama papa dafa nekk nga xam ne dafa bëgg déglu rajo mm-hmm. ba ñu koy doon woowee teg de liste ndax rajo rajo rek lay dégg du matin au soir RFI journaux yëpp la lay déglu jour journal bu jeex mu dem si beneen RFI euh, rajo Sénégal RFM journaux yëpp le soir il regarde la télé journaux tey moom journal pas moom ay magazine ay kii yooyu du ko seetaan te loolu le fait que mu ngi ko doon teg nag à chaque fois may dégg ay voix may dégg ay voix ñoom Martin Faye ñooñu ñëpp may dégg ay voix ñoom euh, Elisabeth Ndiaye di gis ci télé bi ñoom Sada Kane surtout Sada kan ak tous ces grands journalistes que Sénégal a connus je crois que virus bi foofu la mu duggee foofu laa commencé ne man je veux être au cœur dañuy joxe information. ma sant di la tàggatoo. maa lay gërëm Omar. Euh, di la jaajëfal di la di la sant parce que xam naa ne ku baax nga parce que depuis daaw bu ñu xamante toujours le même et ni nga uufee ñëpp man loolu moo ma gën a neex si yow jërëjëf jërëjëf Fatou Kiné Sène nekk di liggéey journaliste ci agence presse sénégalaise APS moom lañ doon entretien wal tey waxtaan nag moom ci Fesnac bi nga xamante ne nii ba léegi ñu ngi ci diwaanu Fatick may gërëm Cheikh Tidiane Sène moom laa ci àndaloon di sant aussi répp yéen ñi nga xamante ne nii yéen ñu doon bàyyi xel di leen jox rendez-vous très prochainement jërë ngeen jëf